dañoo wante dëgg Sénégal jàmm ji. xam nga jàmm dafa bëri façon kii dawar kii jàng ba am diplôme am ay master am jàng ba sol amul job mu dem jëndi jakartaam dajale yaayam teggit mu takkale ba jëndi jakartaam bu 300 bu 350 mille francs dem bokk nattu yaayam chaque jour ñu fexe dugal junni ci nattu yaayam boobu noonu police yi téye ko fi di ko tardel nangu moto bi parce que dafa fàttee fay assurance taaleen ko foofu wala dafa dafa dafa dafa dafa yëpp koo xamante ni so solul kase c'est-à-dire yooyu léew dem aussi c'est c'est de la sécurité fàtte assurance fàtte takk casque ñu ngi sensibilisation depuis quelque temps par rapport ak accident yi nga xamante ne mi ngi am euh, ci euh, ci ci tali bi actuellement te suñu sévir yëf yi exactement ils sont <laughs> en infraction aujourd'hui c'est pas question que tey ku nekk nag yow yaa war a jël sa responsabilité bopp euh, dag sa sa assurance à temps ki ngay mu nekk euh, ci li nga xamante ne moo takk euh, kaskam mhm. parce que voilà on est là pour sensibiliser quand même pour wàññeen ñi waaye il faut il faut qu'on se dise mais pour te rejoindre ñun dem nañu Rwanda xalaatoo yéeg ci moto aussi bien le conducteur que ki ngay yàpp passager bi du du takk casque loolu kenn xalaatu ko man man en fait dama sama ko dafa yebul quoi c'est-à-dire bëri na ay problème am Sénégal ñu ko def mhm. war nañu mën a boo arrêté nit si moto euh, am na problème assurance ko régler quoi ci saa si mhm. parce il faut ñu jàppalante manque de yërmande boobu noonu moo am te man man xam man jubal na. mais Abdou Karim yéen ñii tamit waaw ah, d'accord vas-y terminé. waaw voilà c'est-à-dire mm-hmm. xam nga man man man ci réalité bi laay wax quoi il faut pas qu'on se voit la face Sénégal lañ nekk li ñuy dund fii ñun ñu xam nañ ko. Mm-hmm. dama ne nit ku yar moto sol na casque mu jël yàpp kenn ko xamam dafa fàtte solo ko casque wala amul casque mën nañ négocier ak moom ba wàccee client boobu noonu. mais bu amatee ñu arrêté mais dañ lay arrêté def ko infraction bu grave boo xamante ni yow yow touriste yow di nga toog 3 jours yoo xam ne amaana sax xëy na doo jot sa bopp. d'accord mën ko négocier bi day dem. d'accord un day dugg ci gaal gi. ñëpp gis nañ ko dugg ci gaal quoi nekkuñ ci jàmm. jàmm na ku mu neex nga ni jàmm jàmm jàmm jàmm réew mi ni muy doxee ñëpp gis nañ ko li ñu nekkee nii du jàmm léegi nag day affaire day commencé di dox quoi day dox day am un deux dem ba yegg foo xamante ni comme li doyen di wax après yow doo ko mën a maîtriser waxuñu ni beneen camp opposant bi defuñu duñ def ay erreur wala duñ wax yenn wax yoo xam ni mais dafa am lu ko indi logiquement nga xam ne raxasu ndoxum kese la woon ba ca loxo yi bare la tilim c'est-à-dire politique Sénégal musul àgg ci dimension bu mu àgg nii ci ñu nekk au pouvoir yor pouvoir ni ñuy wàccee politique bi ci bassesse musul am musul yegg fi ni ñu piétiner justice bi maanaam di discrédité ko musul egg ci dimension bi procès Madiambal Diagne Téliko juge bi daaj Madiambal Diagne 3 mois Madiambal Diagne gàddu saagam romb ko dem loolu musul am ci dans l'histoire du Sénégal sax dafa am yoo xam ne dañu fa yegg foo xamante ni dañu fa yegg ci yoo xamante ni mu yóbbu Sénégal ci benn dimension il faut pas ñu naan non jàmm bi kii moo def dafa am lu xew dafa am lu dal Khalifa Sall amul lu daloon Karim Wade après ñu gis mu nekk lecture ñu jugee 1 2 dafa jugee point A jëm point B ñii Sénégal ñu ngi gis réalité yi ñun tam léegi nag soo bëggee ñëw après nga jël loolu yëpp xew nga bëgg ko pousse à a des a ne diw nangam rek ñu jàpp ko tëj ah, tey moo tax Sénégal mel nii bu ñu demee ba sëriñ ku ñu ko wax mu ne jàmm jàmm jàmm loolu mooy problème bi en réalité loolu mooy problème bi léegi nag jàmmu réew moom la sànq ne la jàmmu Sénégal Macky Sall moo ko yor Macky Sall su bëggee Sénégal su léegi-léegi su génnoon rek wax wax yi ne bon euh, troisième troisième candidature wala yooyu noonu leeral ko rek déjà loolu respecté Sénégalais yi maa ngi koy wax la fois toog ñu dem ba ba c'était à presque huit mois des élections présidentielles kenn xamul kan mooy candidat mm-hmm. loolu mooy ko boolee di si dox après ñu ñëw ñu walaa jàmm-jàmm mais ban jàmm la ñuy wax jàmm ji kay kii boroom kër gi moom kay su taxawul taxawaayu kilifa mais mais ku nekk ci kanam bu jubul rang bi du jub. d'accord.